conseil moo leen di may seen revue de presse mbokk yi dale nag jàmm ci li yéen a kaay xëyee dañu koy doore ak réew mi quotidien mi nga xamante ne ci xëtam bu njëkk dafa am ab waxtaan bu yaatu ak woykat bii di Sidi Diop moom nag nee na moom moo gën a xarañ ci génération sunu naataango yu réew mi quotidien ñëw nañu ak moom ci ab waxtaan gu yaatu ci seen page réew mi people gannaaw réew mi dañuy daal di ñëw ci las le quotidien ñoom nag ci seen xët gu njëkk ñu daal di gi ñeel statut de l'opposition ba tax na sax mbir bi daal dinañ koo dénk ñoo xamante ni seen xam-xam daal dina cee màcc waa Sud Quotidien di leen feelu di ñëwaat ci njiitu réew mi Macky sàll bi nga xamante ne jamono ji moom mooy arbitre bu dialogue national këru yéenekaay bi di wax ci lajj gi nga xam ne am na ci wàllub jaloog bi ndax nag commission cellulaire bu jaloog bi dafa daal di jeexal ndajem bi démb ak ñàkk déggoo bu bees ci li nga xam ne moom mooy taxawaayu opposition gi dogalu delloo dossier bi njiitu réew mi Macky Sall mu mel ni kon classe politique bu Sénégal ci boppam moom moo daal di lajj ci mbir mi loolee la journal bii di Sud Quotidien daal di xamle dañuy des ci géewu politique bi ak journal bii di Source A ci xëtam gu njëkk mu ñuy xamal ni maître Moussa Diop daal na sànni ay misilam moom nag nee na ci këru taskatu xibaar yi gis na ci ay jëfin yoo xamante ne dañ ko bëgg a faagaagal nee na nag na ñooñee waajal ndax dina jàmmaarloo ak ñoom nee na nag moom lépp mu mën a wax rek moom mooy tuddul nañu ko bàyyi nag ba mu def passation de service am bu ko defee mu mën a jëlaat libertéem waa journal su A ñoo ko xamle waa lii quotidien ñoom dañoo xëyee ak ki fi nekkoon njiitu réew di maître Abdoulaye wàdd di ñu wax nag pàccu fippukat bi nga xamante ne am na ci kii di maître Abdoulaye wàdd ba tax na ñoom daal dinañ cee ñëw ci ab dossier bu mag di fàttali nit ñi taarix gi nga xamante ne mun na am fàtte nañu ko ci jaar-jaaru maître Abdoulaye wàdd waa journal Le Quotidien di des ci mbiru statut njiital kuje gi ñëw ci taxawaayu mi Macky Sall nee nañu nag ci seen moom moo yegg si ci ñaareelu position bi ci présidentielle yi kii di Birahim Seck bu forum civil jox nañ ko kàddu ci le quotidien moom nee na débat bile lu tuuti la te dara taxu koo jóg lu dul fàttaloo nit ñi li nga xamante ne moo am solo ci jamono yi bokk na ci li am solo ci jamono yi ñu toll wàllub mënd gi journal tribune ci la xëyee di ñëw nag ci ay révélation yu mag yoo xam ne kii di Abdoul Mbaye daal dina ko cee amal ci yorinu wàllub inondation yi bu nu jógee tribune dañuy daal di dellu las ndax nag waa Kaffrine am nañu nouvelle bu neex am nañu jamono ji seen centre hospitalier régional waa lii quotidien di leen ci feelu di wax ni hôpital bu bees bile dina tàmmali di dox weeru janvier atum 2020 bu ñu sukkandikoo ci kàddu Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ bi ñu denk wàllu wergu yaram journal critique daal di ñëw nag ci bataaxal bi nga xam ne député Mamadou Lamine Diallo daal dina ko bind gouvernement bu Sénégal ak parcs nationaux yi ngir ñu mën a indi ay leeral ci gazelle oryx yi nga xamante ni juróon na fi coow ci jamono yi ñu weesu ba tax na moom député bi taxaw na temm ngir am ci lu leer moo tax mu bind ci ab bataaxal li leeragul ba tey bokk na ci crash bi nga xamante ni amoon na ci ab avion bu Sénégal Air juróomi at a ngi nii Libération di ci dellu si wax ci ni juróom-ñaari nit yu faatu ba léegi amul kenn koo xamante ne mun nañoo duut baaram ci moom ni moom moo taq ci li ni mel instruction bi daal dinañu ko bi ba léegi mu nga ca parquet famille wu ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ci loru woon dem nañu ca tribunal civil ngir yoon mën a def liggéeyam waa journal l'enquête itamit di ñëw itamit ci crash boobule di jox kàddu ku fa nekkoon chef maintenance kookee daal di wax ni aéronef bi da doon jox contrôleur yi ak yeneen appareil yi ab position boo xamante ne nekku fa woon kii di Mamadou Koumé daa di témoigner itamit ci mbir mi waa Vox Populi di xëyee ak mbir mu doy waar boo xamante ne dafa xew ca Koungkané ca région bu Kolda ab candidat buy wuyoo ci turu Sadio moom moo daal di génn àdduna ci jamono yi nga xam ne mu ngi doon def examen ci bés bu mujj bi biir bu metti moo ko daanal mu daal di fay jóge daal di génn àdduna yéenekaay bi di maréchal Déby dafa bëgg a faatu ci boppu nguur gi mu mel ni kon Tchad doon na ab jaaxle ci Afrique waaye tamit ci tchadiens yi ndax nag ab nit koo xam ne dangaa bëgg toog ca nguur gi di salfaañe lépp loo xam ne ak ak doomu aadama la ak tëralinu bon gouvernance te loole yépp ci ndimbalu France te sax nëbbuñu ko waa Dakar Times daal di cee def ab dossier bu yaatu ci bésu samedi bi dañuy daal di tàbbi ca terrain yi ak stade le quotidien du sport bi wax ci wàllu tàggat yaram ñoom nag daal dina ñoo xëyee Lionel Messi mi nga xamante ne daal na génn ci tekk tekkaaral gam nekkee woon xam ni dina des ca Barcelone moom Lionel Messi daal di wax bëgg a jóge ci club boobe di Barcelone fameem yépp dañoo daal di taxaw di tuur seen rongoñ waa Stade Le Quotidien di ñu wax itam ci bés bi nga xam ni FIFA jàpp na ko ngir match Sénégal Mauritanie ca Thiès fukki fan ñett ci weeru octobre lay doon ñu jeexale ko sunu lamb sunu lamb Khadim Gadiaga njiital Rock Énergie daal di wax ni Tyson mën na bu baax a baax jiite